actualité du jour bu tey bi je pense que ne dina soxal activistes yi nga xamante dañoo nekk bitim réew particulièrement nag ñi nga xamante ne dañoo nekk ci réewum France Macky Sall dafa jox benn texte réewum France tex bi nag dañ ko war a yóbbu ci assemblée ba voté ko àllarba bi weesu dañ yóbbu texte bi ci assemblée bi war koo waxtaanee mais nag ñi ëpp ci député yi dañoo épargne texte bi en part di wax ci lenn ci opposant yi nga xamante ne gouvernement bu Sénégal daf leen di jàpp di leen tëj ci kaso yi en même temps aussi lenn ci député yi dañoo jàpp am na ci ñoo xamante ne sax jàppuñ dañoo gëm ne Macky Sall dafa bëgg a def li nga xamante ne moo di troisième mandat même sax bu fekkee ne constitution bi aaye na ko am na ci point boo xamante ne nag moo gën a soxal activiste yi nga xamante ne ñoo nekk réew parce que da cee am benn boo xamante ne li muy wax mooy lan bu fekkee dafa am benn sénégalais boo xamante ne dafa nekk bitim réew sénégalais boobu noonu gouvernement bi considéré ko comme jihadiste gouvernement bi mën na wax France France jël kooku noonu andi ko ci réewum Sénégal mais li nga xamante ne nag moo gën a jur coow mooy lenn ci député yi dañoo ne baatu jihadiste ci boppam dañ ko war a définir maanaam jihadiste lan lay tekki parce que am na ci ñenn ci député yi dañoo ne gouvernement bu Sénégal li mu jàppee jihadiste mooy opposant yi nga xamante ne dañ ko lëjal c'est-à-dire bu ko lëjal rek mun a jihadiste nga dans ce cas là bu fekkee loi boobu voté nañ ko benn activiste mën a nekk France sonal gouvernement bi bu ko defee du sonn def naan diw jihadiste la rek andi leen ko directement ñu andi ko loolu moo tax lenn ci député yi seen xel dalut ci loi yi nga xamante njiitum réew bi comme dafa bëgg a def li nga xamante moo di troisième mandat léegi-léegi xam naa xaw na kii mais dinaa leen ko faram-fàcceel incha allah bu ci nekk ba ngeen comprendre ko tey vendredi le 27 janvier atum 2023 ma wala tënkal actualité yi a fës ci journée bi dama la naan njooku yong dafay dépendre rek ci waxtu wi nga xamante ne moom ngay seetaan vidéo bi député yu assemblée nationale bu France fàttewuñ benn yoon situation bu critique bi nga xamante ne moom la ñuy dund ci Sénégal ci wàllum politique loolu moo tax ñenn ci ñoom di souligner coowal troisième mandat bi nga xamante ne leeragul ci boppu sénégal yi te am na ñenn ci ñoom ñoo xamante ne dañoo gëm yàqin ne Macky Sall dafa bëgg def li nga xamante ne moo di troisième mandat même sax bu fekkee ne constitution bi daf koy tere am na ci ñoo xamante ne aussi dañ koo joxoñ baaraam ci lenn ci opposant yi nga xamante ne dañ leen di jàpp di leen yóbbu ci kaso yi am na ci ñoo xamante ne nag dañoo wax ne li nga xamante ne moo di démocratie dafa sooxe lool ci réewum Sénégal premier vice-président du groupe parlementaire de la majorité muy wuyoo ci turu Sylvain Maylard wax na ne situation bi nga xamante ne moo di situation politique bi nekk ci réewum Sénégal ci jamono ji tar na lool mi ngi wax aussi ne autorité yu France ñi ragal lool njombe am ci élection présidentielle yi nga xamante ne moo war a am ci atum 2024 yëmu ci loolu aussi mu ngi wax ne njiitu réew bu Sénégal bi nii di Macky Sall dafa bëgg def li nga xamante ne moo di troisième mandat même sax bu fekkee ne li ëpp ci majorité bi bi nga xamante ne dem nañ ca mbañ gàcce di voté li nga xamante ne moom lañ voté woon mooy ñaari mandat kese lay def bu paree dafay dem mais moom li muy ragal nag mooy Macky def li nga xamante ne moo di troisième mandat député bi nga xamante ne moo di Erzila Soudeysi nag li mu wax ci wàllu terroriste mooy ñu def attention bu a baax ci ñaari texte yi nga xamante ne Macky Sall jox na leen ko parce que ba tey baatu terroriste définir guñ ko c'est-à-dire définition définition bi ba tey leeragul ci boppu français yi ñu xam sénégalais yi lan lañu jàppee li nga xamante ne moo di terroriste. parce que ci weeru mars atum 2021 jamono ji nga xamante ne coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr juddu na Amnesty dafa dénoncé woon gouvernement bu Sénégal ne dafay singale lenn ci opposants yi di leen tëj ci kaso bi te jaaralewu ko ci yoon. ak lenn ci activistes yi nga xamantene jamono joju ñi ngi doon xex en même temps aussi ki nga xamantene modi cheikh di Cheikhou Koli ñàkkoon na ci bakanam ak ñaari chaîne de télévision yo xamantene ne tëjoon nañ leen Amnesty mi ngi ko doon ñaawal doon wax ne li ni tekki tekkiwul lenn lu dul manque de démocratie ci réewum Sénégal lenn ci député yi nag li nga xamante ne moom la ñuy xalaat moo ñu voté loi boobu noonu Macky Sall utiliser ko comme arme de guerre mu nekk beneen mbañeel wala beneen anti France boo xamante ne dafay judd ci réewum Sénégal mu tombé exactement fi nga xamante ne foofu la ñu war a passé directement ci actualité du jour. actualité du jour bu tey bi dama koy commencé ci journaliste biir yi di Pape Alé xam ngeen ne jamono ji may wax ak yéen nii. mi ngi ci sous contrôle judiciaire mais nag ci jamono ji nga xamante ne ñi ngi ko may liberté provisoire yi bokk na ci quatre conditions yi nga xamante ne joxoon nañ ko mooy dossier bii nii ñu lay toppee waroo cee wax ci manière directement wala indirectement loolu nag mu nekk loo xamante ne lu diis la ci ab journaliste d'investigation mais nag dugal na benn post ci Facebook am li nga xamante ne moom la fa wax mooy jamono ji nga xamante ne moom laa toll nii ñu baree bari ci doomu aadama yi dañ may wax ma noppi ci mbir yu baree baree bari yemu ci loolu aussi mi ngi wax ne njort naa ne fi nga xamante ne foofu laay mujjee mooy bàyyi métier bi nga xamante ne moom laay def nii mais li nga xamante ne nag moo ma ci jaaxal mooy lan laay dundalee sama njaboot samay soxla aussi nan laa koy pajee fi nga xamante ne foofu la tëjee kàddu yi nag mooy contrôle judiciaire bi moom dafa mel ni prison rek ci moom mu tombé exactement fi nga xamante ne foofu lañ war a tënkee actualité yi ma di leen jox dig daje incha allahu taala ba leen lundi en même temps aussi ma wax leen weekend bi mën ngeen maa xaar je pense que ne nag léegi programme yi xam ngeen ko bu baax a baax a baax incha allah ma jox leen dig daje incha allah ci weekend yi ak yeneen format yoo xamante ne yu gën a am solo lay doon ci seen canal Italie Wolof di ànd ak mbégte loolu aussi nag ak bànneex saa su nekk ngeen di seex ak ñun jotaay yu am solo yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.